jërë ngeen jëf euh, mbokki ànd ak ñun ni ñu suivre ngi leen di nuyu di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci chaîne chaîne leader bi di people 221 di leen nuyu di leen jaajëfal di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi Sénégal yàlla na sunu borom dolli jàmm di nuyu ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw euh, di nuyu ñi nga xam ne it yàlla da leen a jël ci coobareem yàlla yërëm leen di jiital sama ndaay ak sama baay ak képp ku ñu fekk fi may njëkkee nag tey ma dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mu di Cheikh Ahmed Cissé borom àndalaa euh, Ahmed dama lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne dañu tànn people 221 ngir di fi xamee xibaar yu wér di fi amee mbégte di gërëm ñi nekk ci ginnaaw ba mu mën a yegg si file di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy dimbale jaam yàlla na doon seen dimbal te dimbale leen bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam may ndokkeel jullit yëpp ci weeru koor wi di ñaan yàlla nangul ñu sunu koor may ñu koor gu ñu nangu te yokkal ñu ci koor gu ñu gërëm. Mm-hmm. yal yàlla defal ñu loolu. allahumma amin am na solo Ameth fi mu njëkkee euh, mooy euh, naka la ñuy tànnee soxna fa lay njëkkee tey naka lañuy ñuy tànnee soxna. loolu nag lu jara la ndax dama dégg ñuy fenal yonent bi di ko sosal ñu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa wax ne. Mm-hmm. góor gu ne na tànn jigéen ngir ñeent mhm. benn ngir taaram ñaar ngir askanam mhm. ñett ngir alalam ñeent ngir diineem mhm. man yonantu nag tànnaloo naa la borom diine ñun nit ñu ko firile du dëgg ndax loolu discrimination la su yonantu ne takkal ku rafet kon moo leen takkal ku ñaaw su yonentu ne takkal ko am moo la ne takkal ko ñàkk su yonentu ne takkal borom askan moo la ne bul takk borom askan su la yonentu tànnloo borom diine kon moo la bañ loo ku takk ku amul diine lii ute na ak njàngalem yonentu ute na ak jikko yonentu sallallahu alayhi wa ndax moom àndoon na ak ay nit te xam ne naa feq leen takkoon na ko amul askan takkoon na ko amul taar takkoon na ko amul alal jigéen ñëw na taxaw ci kanamam na ko yaa rasulullah fan laay te jëkkër ju mel ni suma bos di jooy rek yonentu na ko yàlla dina la may ko gën mu ne yàlla amul ko gën mu ne ko maa lay takk xam nga kooku amul dara ndeysaan boroom xam-xam yi noonu ñu firee xaddis bi bàyyi ko fa dafa wuteeg njàngale yonentu mm-hmm. waaye nag dama leen di bàyyee loolu ba jamono ñëwaat ma leeral leen xaddis bi lu mu du loolu. Mhm. ndaxte yonantu xamul ku ñaaw ku rafet bay tànn ku ku rafet di bàyyi ku ñaaw ndax diina lislaam ajuwul ci taar. Mhm. yonantu xamul ku ñàkk ku ku am ndax moom ci boppam pauvre la woon. Mhm. toog na ñetti fan amul dépasse. yonantu xamul boroom askan wu suufee ndax bilaal jaam la te bokk na ci ñu ko gën a jege. yonentu xamul borom diine kese ndax mu ngi àndoon na ay naafeq kon xaddis boobu dafa indi njumte bu rëy ci société bi ñu waxee ne nen takk nit ñu ne yonentu moo ne nen takk jigéen ngir alal moo tax jigéen ñi tey dégg message bi dem di wuti alal di wuti alal ngir toll na foo xam ne cas social kenn du ko takk. Mhm. biñ ne yonantu mu ne nen takk jigéen ngir taar ku sa taati tuuti nga dem def cerise yokk ko ba mu duuf ku ñuul seeti maam Ndiaye Sofa mu xeesal la ba nga weex ku ci bëgg a bind seeram dem seeti takkoo mu tatu la parce que ñu jàngal ne yonantu mu ne ku rafet neen la takk. Mhm. te jigéen benn ñaawul bu yokk taar belli gis nga seen mal interprétation firi bu bon mi nu mu yàqee diine. Mhm. te ñëpp a ngi noppi nag mel ni borom xam moo tax yàlla nañu yàlla may xam-xam. allahumma amin. Euh, nu ñuy tànnee jabar. Mm-hmm. dafa des ci yow lan nga bëgg. Mm-hmm. mais amul benn critère ne lii leen war a tànnee jabar loolu amul. Mm-hmm. ndax ku mel ni man bugguma jabar ju yaru bugguma jabar ju bëggul àdduna bugguma jabar ju taat ya weng wala ko taat ya tàpp mel ni luñ paase bugguma ko <laughs> bugguma kuy ibaadu bugguma ko xeesal tam maasewul bu maasee nag bañu ma ko kon man nan nga ma war a xee ñuy tànnee jabar man bugguma ko jikkoom baax ndax ku ñëw ci man baax. Mhm. te su fekkee ne ñu baax ñi ñooy takk ñu baax ñi. Mhm. waa ñu bon ñi ku leen di takk. Mhm. su boobaa dafa laaj ñu leeral mbir yi. man Cheikh Ahmed Cissé fu may nu may tànnee jabar mooy ku ma mat seytaane ci taar ak ci kaw lal ba. koo xam ne am nga mayn bi fu may xalaatee nga fay xalaatee koo xam ne tey bu ma reewantoo nga bajantu suma kaw xam nga bajantu mooy magi réew koo xam ne su may dof dof la nga dopparal suma kaw man yii moo ma joie mhm. mais damay bëgg jigéen joo xam ne jikko yu yées nga am lu ma la jox doo ko gërëm su ma ne benn nga ne ñaar ndax loolu dafa may muñ loo te su ma muñee ci yow am yàlla mhm. man lii laa bëgg mhm. lii yàlla mënu ci dara yonentu mënu ci dara ku yàlla ak yonentu nag sama fu mais ki nga xam ne moom dafa jàpp ne jigéen jaam la liggéey leen koy doyee na seeti jigéen yu am doole bu dëgër mu koy liggéeyal. Mhm. ki nga xam ne dafa jàpp ne jigéen pour doom rek la na dem seeti koo xam ne ferñeent ñi ci biiram bi baax na muy ëmbal rek. ki nga xam ne jigéen xamu ca lu ca lu kaw lal ba na dem ca baar ba tànn ko mën lal ba mu takk ko. Mhm. nit ku ne na ngay tànnee jabar lii mooy li gën a wér. waaye xam-xam dafa wax mu ne seetal borom ndey ak baay ju baax yaakaar nañ ci moom baax. jamono moo weddi loolu ndax da ngay gis koo xam ne da nga koy xool ba mu yàgg nga ne ko nuruwoo sa ndey nuruwoo sa baay. Mhm. ndax ñun ku ne da nga àbbu jikko réseaux sociaux moo ñu jox jikko star yi ñoo ñu jox jikko situation moo ñu jox jikko kon mënatuñoo tànn doom ci ndey wala baay ndax njabooti démb den daan toppe njabooti tey njabooti kanaara leen ñoo lay jiital la preuve da ngay indi nit na ko bëgg naa ko sa da ci moom war a takk sa yaay lay laaj wala sa baay ndax bëgg nga ko. Mhm. mu maye. moo tax bis boo bañee sëy bi tas. kon atte bi gën a wér ci li ma xam man mooy ku ne da ngay tànnee jabar dépend ci sa suwaa yow. mais bul ko teg ci suwaawu société bi. bul ko teg ci suwaawu ñu ne yàlla mu ne yonantu mu ne déedéet. ndax yonantu yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam waxutoon takkal ku xam diine. daf ne ku am diine lan mooy am diine mooy góor gu infidèle amoo diine ndax infidélité diine mënu koo fekkee. góor guy fen di nettali amoo diine ku amul métier amoo diine ku ragal dépasse amoo diine. Hmm. kon lan mooy diine mooy vrai gentleman. Hmm. mais tey boo soloon sa tubéy ju baax ju a def sa pain bu ne mut sol sa moko seer defar sa oo ba mu dem liggéey duñ la xoolee nit yi diine. Hmm. den nan la jaay taar jaay prek mais pourtant kooku mën na ëpp diine Cheikh Ahmed. ak boppam bu rëy bi ak xam-xamam bu rëy bi mën na amul diine. waaye ban jigéen moo am dina ndax ki muuru ñaata ibaadu lañ jàpp ñuy sàcc. ñaata ibaadu la ñuy biiral julliwuñ ba biir naafilewuñ ba biir jànguñ alquran ba biir. Hmm. ñaata ibaadu ñooy dajee seen groupe bi di jëw ay nit yàlla. Hmm. kon lan mooy diine mooy ku nite. Hmm. lan mooy diine mooy ku gore. lan mooy diine mooy ku màndu ci làmmiñ lan mooy diine mooy ku am personnalité. xanaa xamoo nit mën na di tëddante te am na diine. Mhm. nit mën na di laalante lu neex te am dine <laughs> ndaxte malayka yi bi ñuy sikkal doomaadama yàlla daf leen may bànneexu sëy ñaari waxtu ñu mooy yàlla ba tey ñu ngi leen di mbugal doomu aadama dina toll foo xam ne siddiitam moo dul marqué mhm. dina def lum taywut mhm. moo tax yàlla teg téeméeri yara mhm. ngir yar yi dafay jubbantiwaat sa xel ëllëg bis bu sull ba jugatee ba xel mi wàcc nga xalaat ne boo ko defee téeméeri yar a ngi taxaw nga keppaat sull li mooy njëriñu dóor mais yàlla waxul ko njaaloo ñu rey la de ki dévote la rey mooy ki taxaw xool góor na ko suur naa bépp góor yow rek laa tànn. nga jël canam gi nga xam ne moo jàkkaarloog sa bajo bi ne moom rek nga koy jox kii rek leen war a rey ndax danga waat joxe kàddu ta sàmmoo ko gore di boobu leen la reyee mais du njaalo bi. njaalo duñ ci kenn foog ñuy dégg diine ki am jabar. ak ci am jëkkër la ñuy rey du njaaloo ba leen leen reyee mais engagement yiñ jël ci sëy ba pare tamataluñ ko leen leen reyee. mais ki njaalo laalante ba mu neex kooku téeméeri yar la moom. njaalo den ciy dóore waaye duñ ci reyee waaye mariage nag ak ni mu reyee engagement bi boo ko jëlee sàmmoo ko moom duñ la rey sax de. dañuy jël xeer di la ko rabaj di la ko sabaj di la ko dagaj ba nga dee. te duñ la suul fu ñuy sul jullit ña wala ci ñu gën a doyee du ñoo lay jullee. Mm-hmm. ñu nëpp nëppal la ci ginnaaw armeel bi. Mm-hmm. donc. Mm-hmm. lii dafa baax ñu xam ko. nii la ñuy tànnee jabar. keneen ku gëm leneen nag. man respectel naa la loolu. mais bugguma ñuy tuwis waxi yonantu sallallahu alayhi wa sallam. maa dem ba ci yonantu laaj ko na ko yaa ko wax mu ne waxeewut ko nii wax ma ni mu ko waxee. am na solo euh, mën nga ma ndil ay leeral ci ci ci ci atta attaku njaaloo parce que njaaloo euh, yaakaar naa dafa bëri ay façon yoo xam ne nit ñi xamuñu ko mën nga ma ci ndil yan façon njaaloo ñu am ak lan mooy atte njaalookat. ci diine lislaam bi ma xam. boppi koy bu dugg ci lëfal jigéen mooy njaalo man de lii laa xam lislaam bi ma jàng waxuma lislaamu conception sénégalais waxuma lislaamu suñuy aada ak lislaamu teggi nag rafetal lislaam bi nga xam ne inna diina inda allahi l islaam ñu jox ko nabi salaam mu woote ko ba taxaw ca arafa ne yàlla matal naa yàlla seede malayka yi seede jinne yeeg nit ñi seede nga xam ne kenn du ci wàññi dara kenn mënatu ca yokk dara lislaam boobule li mu wax ci njaaloo mooy boppi koy xaraf bi su duggee ci bajob jigéen daanu nga daanu loolu njaaloo la kon njaaloo ak mooy yàlla bokkul mooy yàlla jëw mooy yàlla la mooy yàlla mooy def lu génn luwaa bi la yàlla tëralal sàcc mooy yàlla la yéex a julli mooy yàlla la ñàkk julli mooy yàlla la njaaloo munoon naa wax ne mooy awra bu ndàngam doo comprendre ah la xayaa fi diin waaw fi la xarafale yow góor gi mm-hmm. bopp boobu salum salum di ko ooyee bulli su duggee ci biir lëfal jigéen loolu mooy njaaloo soo daanoo ak soo daanuwut d'accord am na ñu gëm ne njaaloo mooy daanu Mm-hmm. am na ñu gëm ne njaalo mooy biiral déedéet boppi koy bi fu mu duggee ci lëf li njaalo nga. Mm-hmm. lii mooy àtteeb njaalo ci sarihatu muhammadiya mm-hmm. ah, waxuma senegal waxuma ak sénégalais yi waxuma seen aada waxuma seen gëm-gëm waxuma seen diine man diine lislaam laa wax bi yàlla jox yonent bi. loolu mooy kon tey jigéen romb la. nga xool ko muy borom jabar di célibataire loolu noonu kon du njaalo mooy yàlla la. déedéet du njaalo bu dee benn xool baal neen la ko mais xam nga góor ñ xoolatuñ dañuy scanner ay nante leen. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord xool jigéen bàkkaarab xool ngay am. mais na tël gis ko ne uy sama ndey lii lan la. gëmmal mbaa nga xeelu mbaa nga dem. boo fa insister benn xool bi concentré ñaar la ndax xool bi ak bi nga xool bi nga xool mooy bàkkaar waaye xool bi du bàkkaar. lan mooy conséquence su njaalo. conséquence njaalo dafa bari. Mm-hmm. dafay tax yàlla mere la. waaye yow laay waxal moo tax ma wax mer waaye yàlla du mer sànjab yàlla ci yow. Mhm. dafay xàll sa yoonu safara defar ko ba nga mën a dem safara nice ma nante ma mais dafay wàññi sa wërsëg dafay wàññi sa leer gi yàlla def ci yow mooy sa taar ñeent yii la njaaloo di def baaxul. Mhm. waaye nag am na yu yu ci nekk te yàlla te du waxut ko mhm. mooy dafay indi infection dafay indi feebar. mais dafay indi impuissance njaaloog mballu liñ mën ci néewloo góor kàttan kenn xamu ko mhm. njaaloo daal baaxut yàlla nañu ci yàlla musal sëriñ bi bi mu doon wax waa ji di jottali mu ne sëriñ bi nee na mooy yàlla baaxut neexut sëñ bi mbéj ko na ko waxuma la neexut baaxut laa la wax mhm. laaj naa benn waaye ma ne ko lu neex ci njaaloo mu ne ma sàcc gi moo ci neex mhm. baaxut de ñeenti conséquence la am sànjab yàlla xàll sa yoonu safara wàññi sa wërsëg wàññi sa leer. Mhm. benn waaye daf ma message léegi di ma laaj ni ma euh, tey sëy ak sa soxna ci weeru koor wàññi ko ban yool nga ci am maanaam sëy lu bari wala wàññi ko loolu noonu lu ci lislaam wax. lu yokk ko moo gën. sëy waaw ci weeru koor sa soxna. Mhm. sëy naafila la. maanaam laalante ak sa jabar naafila la ci sunnatu muhammadiya xam nga moo tax diine lislaam rek mooy diine. Mhm. tiim sa jongoma def ca can mu lew la kenn du la ubbil bunt bi. Mhm. daw du la ko aaye di la ko jox ci mbégte ngay rëkk réelli réelli gi fu waay tollu dégg di am tiyaabo lislaam rek a ko moo tax man daal jullit laa. Mhm. inni amantu billahi wa. wa wa rusuli wa nabii kullun ñëpp laa gëm. Mhm. lislaam daal dafa neex. waaw mhm. ah, laalante daal nu mu gën a mën a bëree ci weeru koor mhm. na bëri. waaw ah, normalement lu mu gàtt gàtt bët bu set war nañoo mën a am benn daanu ci weeru koor bi. ndaxte fóonante ba tiyaabo la raayante ba maccante ba laalante ba sangu farata gi tiyaabo la. Ah, lislaam daram waaye soo foogee ne nag beru sa soxna weeru koor mooy jaamu yàlla bu sa soxna namee góor am nga bàkkaar de. man de weeru koor moom comme quand je ba mu des ba mm-hmm. ah, waaw aw ma ci aw ma ci dayoo de wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ak ah, ñaari naafila daal la am kaw lal baak sijaada bi bu ma ci neex ma jël. Mm-hmm. ah yëpp diine la benn xaraamu ci. man sijaada bi ñaari rakk rek ak safa ak ñetti rakk lu ci des yëpp naafila kaw lal ba. xanaa xamoo teg sa jabar sa kaw mbag bi di waxtaan moom ba fajar naafila la bu ngeen pare rek jàpp julli tëdd nelaw. Hmm, naafila la man man yenn saa yi ma naafilaa ko. su ma pilee ba pare ma dem tëdd ci mbagg bi ma koy duulal rek <laughs> ndax duul ci mbëggeel la bokk. naan ko di ko raay bopp bi naan ko xam nga ne àdduna yaa ma ci gën a la mu naan man naxu ma ma ne ko billaahi naxu ma la te pourtant yonantu bi ma ko gënal mais dafa neex. waa dee leen fenal jigéen fen yu amul conséquence. ndax fen ci mbëggeel la bokk. ndax mbëggeel ci boppam day fen. mbëggeel mel na ne ci xol la nekk te xajut ci xol. Mhm. waaw kenn xamut lan mooy mbëggeel ak fan mooy mbëggeel donc di ko neexal rek. Mm-hmm. waaw léeg-léeg ma taal Pape Diouf mu naan ma dang ciy doo di ci fayu <laughs> may def yu ma neex muy kontaan di ree mais loolu naafila la. Mm-hmm. man noonu laay naafilaa léegi léegi. Mm-hmm. suma ma taalibee itam maa ngi leen di diggal ñun naafilaa noonu. ndax yonantu bañut ko. waxuma aadaay ak xam-xamu Sénégal déedéet yonantu laa ne bañut loolu. diggal nañu ci benn xadis ne dee leen naafila comme Daawuda. dee leen woor comme Daawuda mooy woor tey bàyyi suba naafila ci guddi gi tëdd nelaw naafilawaat. waa comme moom nag mooy mooy ker kersa tëdd ak sa jabar kenn xam na ne nelaw taxut ngeen doom doom mm-hmm. kon naafila boobu daal man je préfère. am na solo. Mm-hmm. laaj bi dafa jëm ci ndogoo sa jabar. ndogoo sa jabar maanaam tin ma ko mën a tënkee mooy tey nga ndogu rek dem jubali sa soxna. mais soo ndogoo looy def lu du dem sa soxna. loolooy question maanaam question ndogoo sa jabar du question loolu yëbaate la mais soo ndogoo lan nga war a def lu mooy dem sa soxna. ku la nekkal ci waañ bi toggal la dressal la table ba mu baax jéeg ju pare ji dem sangu yokk seen fer biru bi xaw a yokk keseng keseng gi hmm? def seen toq tay baas di tàggu ci kër gi léeg-léeg ñu felale di la laaj loo bëgg teg yi nga lekk ba pare waa lan nga war a def lu mooy dem sa soxna man de xaw ma ko. Mm-hmm. neen di sóoraale jigéen ñi te bañ leen a ameel àq. Mm-hmm. Hmm. am na solo am lan mooy taxawaayu jigéen ci société. taxawaayu jigéen ci société. maa ngi ko doon jàngal xam nga dama am benn groupe bu whatsapp boo xam ne jigéen ñi rek laa ci dajale. di leen jàngal secret yoo xam ne boo ko defee góor du la bàyyi. nan nga war a muñee dama fa joxe benn xam-xam. ma ne dafa am benn jigéen. Mhm. mu gis safara bu rëy tàkk. mu gis ci jaan ju rëy. mu dugg ci biir safara bi génnee jaan bi jaan ji màtt ko màtt bi métti lool. mu wiccax loxoom bi sànniwaat jaan ji ci safara si. fi ko jaan ji màtt mu ngi métti mu téye ko. mu xool xool mënu koo xool mu jël weñ rocci waat jaan ci safara si benn góor a ngi taxaw di ko xool. mu ne ko ee eh, ndaw si kaay. ana lan moo tax ma gis la nga dimbale jaan ji mu màtt la nga dimbale waat ko mu ne ko dama di jigéen. muy lakk ma war koo dimbale ndax dama jur. bi ma màttee ma delloowaat ko safara si damaa yedd suma bopp bu doon suma doom duma ko fa delloo ma indiwaat ko loolooy jigéen. bu nekkee ci kër ñu koy saaga ak xas na joxe lu baax ndax asiyatu seyoon naa ki gën a xamadi gën a réew gën a beew ba ne iniya ana rabbukumul ala muy firaaw na te ci sangi jigéen ñi la bokk ndax dafa baaxoon moo xelaloon firaaw na mu bàyyi yonent yàlla Musaa bari salaam dem nga nekk ci société ñu lay xas ngay sol sa lu la neex di dem baali di nekk ci lu la neex ñu lay joxoñ bëtu caga bu leen leen faale dencal sa virginité ba keroog ñu jébbal la jigéen daal mooy ki nga xam ne mooy magasin wu yàlla jigéen mooy ki mérito muñ mbooleem naqar ngir moo attan mboolem may kuy dem ba yàlla wóolu la ci yonantoom wóolu la ci saxaabaam wóolu la ci walliwam wóolu la ci imaam wóolu la ci président de la république lu la waaye teg rek na nga ko muñ. soo gisee nit man maa xool ba ne ma da ñaaw te du ma mer damaa xam ne yàlla ci taaram la ma bindee. miim laa xadam dellu miim laa di nga mës a xew wala nanga duma ma saf xam naa ne yàlla mi xam fépp nekk fépp moom xam na ma tax ci xam-xamam bu mat bi la ma bindee moo tax dara safu ma. Mhm. kon rôle société rôle jigéen ci société bii ma nekk ak bi ma nekkul moo war a nekk ndox bi ja jàppale suuf seeg ciment bi ñu mën a jàppaloo ba nekk benn bloc waaye moo war a nekk mm, euh, euh, euh, tabaxkat bi war a teglante moo li ngir mu jub. rôle jigéen moo war a nekk courant bi alimenté lampe bii ak micro bii ma téye rôle jigéen moo war a nekk dëgg-dëgg bànneexu mbëggeel rôle diine ci jigéen ci lislaam moo war a nekk mbégtey gëm yàlla xalaawatul imaan mooy rôle jigéen. moo tax ma bëgg leen dama leen xam. am na solo euh, tey ma ñëw ci li nga xamante ne actualité damay wax ne Ameth moom doon na nit koo xamante ni chargeur universel la ñëpp koy déglu. Euh, tey am rumeur yoo xam ne mu ngi daw fan yi mu di kii di sunu frère di Arafaas ñu koy nuyu baax a baax Euh, coowal Ada Fass mooy takk ñaari soxna ak coow yi ci jot a am euh, damay njëkk ñëw ci charia di lislaam takk ñaari soxna bi. Ada Fass de bu ko neexoon takk ñeent soxna benn bëccëg buñ bokk ndey ak baay buñ bokk baay bu seeñ buñ bokk ndey rek c'est mën na takk ñeent. Mm-hmm. en tant que jullit mën na takk ñeent. Mm-hmm. te problème newu ci sikk newu ci. bu ko neexee du tàggu kenn ndax mu kalafu boppam la. ku fi toog naan tàgguwul ma yëgaluma da ngaa waane rek ndax amul obligation tàggu la mais munoon na la jox privilège su tàggu la loo amul obligation si nit rek sañoo ko ca rapproché te su fekkee yaa ko yilif di ko joytu ci internet ba moom su ñàkkee yarit matoo ko kilifa ndax man suma kilifa du wax ak man vers internet doo ko def ndax yaa ma yilif lu ci yoon internet gis naa ñu bari ubbi seen gémmiñ di wax ci moom bu ma leen dégloo rek dama leen di mhm. ndax ki nga toogal mu tàllal la micro nga yàq sa xarit mu ngi xaritam. moo tax ku ma laaj ci Kaliphone ma ne la moo baax moo gore maa bon moo ma gën même duñu xarit maa suma xarit la foog ma assumer loolu ci toile bi bu caméra yi wàccee nag c'est autre réalité. Mhm. mais kuy ànd ak Ada fas ba nga am numéro mu am sa numéro. nga wax seen jaar-jaar ci internet bu Ada Fass juumee juum nga te ñaari njuum te dëgg amu ca. ñoom it neen neen jéggalante jëllalante te xam ne ku tàqale kook sa mbër ni ñaa ngi jàpp seen mbër ku tàqale kook sa dëkkandoor nit ñaa ngi jàpp seen dëkkandoor. ku tàqale kook sa mbokk nit ñaa ngi jàpp seen mbokk. ku tàqale kook sa doom nit ñaa ngi téye seen doom. bàyyi yonantu den ko noon kaa ñu rey yonantu bi mu ngi ñuy ñu jox la kii mu ne yéen a dof kaa ñu rey sa doom yow nga yaral ñu suñ doom nit mus na koo dégg. loolooy xel. kon takk ñaari jabaru aada Fass ci lislaam pas lislaamu Sénégal pas ada Sénégal pas seen dégg-dégg lislaamu yonantu yàlla Muhammad dagan na. d'accord te lu aada def mu dagan na comme naqari sa affaire la. d'accord euh, ci côté ci côté sportif mu nekk xale euh, teel a euh, du ma dugg ci soxna dafa teel mais ñu bari li tax ñuy lu mooy teel a dugg ci ñaari soxna en tant que sportif. amul problème ndax sportif bu amul jabar sa moo dàqa daanu ko am jabar ñoom daanu rek lañuy ñuy def. Mm-hmm. aada war na takk ñaari jabar bu fekkee ne daf koy dimbale mu fegu. Mm-hmm. war na ko mën a takk. Mm-hmm. côté sportivement. gisuma lu nekk ci am ñaari jabar yem ci ñoom. na sa hygiène baax sa nutrition lekk gi baax sa condition de vie baax nga fexe mucc ci stress ñeenti jabar sax da dimbale. ndax semaine bu nekk di nga laal kenn ku laal bokkut ak sa morom boole ay jigéen yu set am wér yaram day yokk góor wér. ndax bu kii amee ndox nga laal keneen ko am ndox siti daf lay faj. maanaam boole jigéen yu bokkut day faj góor li xam-xam la boo xam ne nañ ci ñëwaat. Mhm. Mhm. gisuma ci benn problème sportivement. Mhm. parce que laalante yàqul sport. waaye soo daanoo am na loo war a lekk am na loo war a entraîner ngir récupérer waat la nga daanu woon. ndax aada xam na ko ndax dina ko respecter loolooy question bi mais problème bi du ci ñaari jabar yi. Mhm. mais est que nekkul tamit euh, ñu bari ci ay supporteurs am li ñuy ñaxtu mooy li mu bëre jógee ci défaite war a ñëwaat dëggal boppam ci contre moog Zos tourné waat takk beneen soxna est-ce que nekkul ci ay supporteurs am loolu moo leen métti. waaw supporter moom li koy naqari moo ko xam affaire am la mais xam naa ne défaite ak daanu amul importance ci mbër. mais am na ampleur ci mbër li tax amul importance mooy gàllaaj gam doon def lay def ñam doon àndal lay àndal même la su daanoo ak su daanee même entraînement même nit ki la. Mm-hmm. tu vois yi moom mun ngaa ñëw sa bëree daanu ñu ne la da ngaa ëppal neexuñu. Mm-hmm. supporter moom supporter la rek ñoom amuñ amuñ système mënoo leen a canaliser. Mm-hmm. waaw ñoom amuñ benn système ñoom dañuy merlu ñàkk fay fayda mais yow supporter woo parce que dafa am jabar wala kii mooy yaayam. da nga koy supporter ci arène bi xaar ko viem ci arène mais jabaram sa yoon nekku ci. franchement buñ naa fekk quand même. ki am soxla ci vie wu Ada ak vie sportive du benn moom viem la moo takk jabar lu la ci. lu sa yoon. jugee na ci defee takk jabar moom moo xam. attan na ko mentalement du problème man gis naa kuñ tàgg yaayam mu jooy ko ba pare dem laal jabaram jooy jooy la laal laal gis naa ñoo xam ne buñ xuloo dañuy laalante suñ paree xuloowaat. man laaj ko lu tax mu ne ma suñ taati xuloowuñ ku ne ak sa mentalité mais moom mentalité am dëgër na dëgër boo xam ne malgré Zos eh, nu mu tudd Zarko duma na ko mbëllee ko mbëllee supporter am daat ko mu mën a dëgër ba takk jabar mental bu foor la man j'aime bien mentalité bu fort dama bëgg ko am mentalité bu foor mais coow li coow li ndeysaan soxna si maa ngi koy nuyu donte miiw ma ko lu nekk ñu koy tegal lu nekk ñu koy wax maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ñu naan noo soxna si. baaxul ci Ada Fass da yàq carrière am ci yan qualité nga jàpp ni tey jii ñoom jàpp nañ ni da yàq carrière am. soxna si dafa miin ndakaaru rek ndakaaru miin ko <laughs> moo tax jigéen ñi fexe leen am palmarès bu baax. Hmm, lali hôpital bu ngeen tëdd docteur yi nettali ko wala malaat ya. ne damay cax na lii loolu. dama ne nit ku fi tëdd hôpital boo ko docteur yi nettaliwul ñi ngeen fa ñi ngeen fa fekk nettali ko. Mm, te jigéen war na moytu palmarès ndax ndakaaru dafa xat. soxna si waa miin ndakaaru ça veut dire. du Burundi di du waa Mozambique Sénégal la miin na Dakar booy parcelle la miin na Dakar. wolof bu leer wax. waaye fii daal ku fi am palmarès bu la takkee nga dégg ko de. <laughs> te <laughs> kër yi dañuy am caméra photo yaa ngi dox audio yaa ngi dox. am daa mel am loo xam ne parce que mooy yaay xaritu jéeg-jéeg. man maay sëriñu ndante ko. <laughs> Ndakaaru li fi xam bari soxna si moom li leen ci naqari peut-être sax du ñaari jabar mais kim takka leen naqari. waaw mais nag jigéen la mais nag jigéen la war leen koo takk. Hmm. war leen koo takk waaye xam naa ne miin na Dakar de <laughs> yil la <laughs> soxna si si boppam moo miin Dakar loolu rek a naqari nit ñi. <laughs> Hmm. waa parcelle la quand même du waa Mozambique fii la dëkk surtout loolu rek laa wax. Hmm. ku sa xel dem nag feneen yow la mais waxuma loolu. d'accord am na solo. <laughs> mu ne Cheikh Ahmed Cissé nekk sama xarit nekk sama consultant gis ngeen tey fi ñu génn ci waxtaanu taxawaayu soo jigéen ci société bi njaaloo mu doon koo xam ne vraiment ay waxtaanam dañ koy taataan mu doon wax ju am solo aussi tamit donc am na mbégte ci jàkkaarloo yow yaa xii fillaa <laughs> na Ada Fass bi daal yal na yàlla sàmm sëyam amiin góor ñi noppi leen li passé passé na tëj leen seen gémmiñ ñi bàyyi leen nit ki nit ku baax la <laughs> dafa gën Ada tamit lu la dal <laughs> wasalaam.